la xëy malaakal moom te nuyu la te amul ma defaru amul ma def déedéet moom boo ko koy àcc rek dem rek dem du gane mukk bàyyi fa ko mu jël si woon yóbbu rek waaw di contrôler sa bopp ba xam sa poids yi ci sa yëg-yëg am na ci loo ñëwee ñu duggaale bàmmeelam déet ndax di teel rek di dem jant bi fenk di so noor bi ñëw nawet bi ñëw ak yi dem di dem ba nga xëy génn suba geestu malaaka mawte nag boo koy gis sa bët dangay xam ne tey ceey malaakal mawte kenn du la ko wax yaa koy xam ndax du ko mës a gis ci portale mosulaa tukki ba gis ko mel noonu cinéma yi li ñuy dansé génne wuñu benn film bu niroog waa jooju le day fees néeg bi dee nag boo gisee koy bëgg a dee fu ne mu jëmale fa kanam nga boo xoolee ci digg néeg bi mu nefi nga wëlbati ko xool miir bi mu nefi nga téen mu tiim la ngay nokki ndànk ren jii dala dal buñ ko dàqul du naaw su bët yi xonq cay su piñu wow koŋ lu nooyoon ñagas lu rafetoon ñaaw lu xeeñoon xasaw lu lu lu lu lu baaxoon ban ci say bët te dangari dee dangari dee rekk la jàpp kalaay fa balaxati paraaqiya wa qiila man rooqo wa zanna anhu alfiraaqo waltafati saaqu bi daaqo ila rabbika yowma isidin masaaq ci sa biir wéet sa biir man ci ngay dàqu tiiti ëllëg mi mu mën a am solo waaye toog ba xër-xër def loo waxate yàlla da ko déglu ndax dañuy tëj sa buntu tuub kon yàlla mi leen xiir ngeen boole seen bopp yemu leen ci antana boole seen xalaat yemu leen ci ku ne këpp tis la doxe pexe mi génn feeñ di lii day nii ngeen ooyee ci seen mbokk yeeg sunu kilifa yi diine yii jaa ngeen jëf bu ñëpp defoon ni yéen de li ñuy wut dinañ ko am nu ngi fi nekk nag di ñaan yàlla rek jàmm di ñaan yàlla jàmm te dëkk di ko tooñ nabi yàlla ne na ko jëndee li mu mujjee déewut moom sa gaay yi bu ma amoon xol yàlla nag du mer du kontaan ndax mer ak kontaan ci xol la te amul cër benn cër la amul waaye nee na ko su ma doon mer daal sa gaañoon may def ñetti yëf kon dina ma naqari mu ne ko yaa rabbi ban ak ban mu ne ko dañuy lekk sama xéewal gi di sant keneen benn service bu ma leen jox ñu du mooyu ko soxla suñu am yëpp ma ñaar bu dina am na prix dangaa ruuj ba sa tool set nga tànn jiw yàlla gëj naa daw da gëj naa taw daaw ba mel ni ndox amatul wala sañatu la taw li tax mu téye ndox na yëg na bu tawatee yàq rek la kenn bindu ko leetar kenn yónnewu ko telex dafa sotti ba xam ne gaa yi fatu nañu mu téye ndoxam waaye bu continué woon di sotti ba léegi kenn du ko mën a arrêté mu yëg ne kon yàq ay ëpp mu téye loxam waaw nga toog di xool asamaan moom nga defee xool asamaan rek xool asamaan boo leen di waxtaan ci pinc bi sax ba am ko ne lii day niroog niir da nga ko naan bu ko gémmiñ benn tàkk saa ngay jële benn niir mu ndaw ci càmmoñ jële wenn ca ndey joor ñuy dukkat ba daje mu roofale leen ci xereñam roof nit ñi tàngaay ku ne du upp mu diise benn piton ci arab ngelaw lu sedd upp xeeñaale bàq lu waay weeroon boo yéexee mu tooyal ko waaw waaw waaw waaw mu taw taw bi tooy mu saxal gàncax gi yamu ci mu màggal ko may xel moo ko liggéeyee ñoral ko nga jaay sa gerte gi ñàkk looy wax ndax jaaxaar ne sama gerte ren gii daal dëgg dëgg engrais bi amul morom da ngay lekk dem ba digg géej sa gaal fees nga yër di ñëw sa jëxir réew sa réer ba dem maa bi fàq gaal gi ni di mbóoj nga ne yaa ilaahi wala yaa Cheikh Ahmad Tidiane wala yaa Seyd Abdul Qadir Jeylaani léegi sax dabi ci yàlla mën a tëj suñ borom jékki-jékki jox ndigal géej gi mën a tekk gal gi naan tambaj tambaj tambaj ngeen gaaw ci as damuy jeex rek gal seen leen loo fi ñëw nit ñi dañu yàqale takk yóbbu tefes fekk waa tefes gépp ngi toog di di tefes gi jooy ñu ak si ne alhamdulilah rabbil alamin a gaa yi ñëw na ñu taalal leen jaar nga summeeku di kat kati jaaru ba xaw a jàngi bu sa yaram tàngee rek nga ne ah billahi béjji na bay jiw bi bu dul woon moom tey billahi sa géej la ñuy teel béjjin bi fàtte woon nga ko fàtte woon nga ko fàtte woon nga béjjin bi du béjjin bi eh moo tax fekku na yàlla ne na di ngeen téere dégg naa li ngeen wax waaye xanaa da koy nëppwaat waaw xanaa dootu leen nëppwaat wala su ngeen nëppwaatul itam am na foo leen mën a dogale feneen fu dul foofu mu ne ko nag sa gaa yi ñetti yëf yi ma koy def bu ma amoon jikko bu ma amoon xol dina ma naqari lekk sama xiiwal sant keneen service boo leen jox ñu lànk soxla si ñoom yëpp ma ko bi ca ñetteel nag mooy binduma safara ngir ñoom waaye ku nekk ngi xëcc na foog mu dugg ci loolooy musiba mi am na ci ñetti exemple yu ma leen di jox sax ñu jàll di jàng guddi na maa ngi laaj ku fi teew ku mu doon mu bañ a am kers bu xamee ci li may laaj dara mu tontu ma lillahi wa rasulihi ba ñu dëggal hadis boobu rasul wax bi may laaj gaa yi ngeen baal ma àq li ñuy wax soccu moog cigarette lu ci gën a seer ah cigarette fa gën a seer soccu baax ay seen dem lu ciy lakkaate cigarette moo gën a seer mooy lakkaate lu ciy xasalal gémmiñ cigarette a ngi bëgg ñàkk fayda luñ ci yonente dina yàq xolot bu ko yàq lan lañ ci wax ne ku ko def dem safara doo ca dem ah waa ci sigaret waaw kiñ ko tere nag jox ko socc socc am na fanweeri ngëneel ak juróom-ñaar trente sept ngëneel yonente bi daan wax ne bu dul woon bañ coono dinaa ko def mu bokk sama sunna dina nekkati gémmiñ dina tuur deret ju dee dina dëgëree ciin dina maye fasaaxa dana yokk gis-gis dana yokk neexu nopp dana waral ijaaba dana ëpp neex njëg ah benn dafa naa benn dërëm waaw kay ba noppi mu ngeen mu ngeen mu ngeen njëriñ yu socc nañ yu socc yu teere nañ ak ñàkk njëriñ mu googu seeram googu booy socc di socc ba sa ciin ni diis mun naa xool ci cat la sokkarootoo su ko mën loolu dafa laaj ko xasane moo laaj yuy cat la def ko nii mën na loolu boo yoree aspirine bay si sooyal te ku daamu fi mënu laa yëngal sigaret mën na loolu yàlla boo dem ba ci àll ma nag paan ko dañu tubay ricc nga yor soccu da nga day dépendre rek dem sigaret mën na loolu waaw kay eh ma ñëw yonente bi nee na bokk leen ci teyoolu safara la ku la teyee cigarette jox la soccu tooñu la boobu doy na wala ma doy beneen maa ngi laaj beneen laaj liitari meew ak liitari sàngara lu ko gën a seer ah sàngara gën a seer meew bu ci wax bu boo ko boo gëm li ciy tàggale ni ko soxoon ba li ci jëfandiku ba ay kayit yi ramassé la yóbbu ah waaye sàngara soppoon wala suuti la ku la tere sàngara jox la meew tooñ la kenn naanagul meew ba ñu ramassé ko kenn naanagul meew ba saaga koo bëggu la saaga def lu tax nga rus waaye nañ yem ci li ñu yem loo waay ñetteel bi ma ñetteel ko duma ko fukkeel ci ñett laay yem ndax damay bëgg mu tóol ndax am na ñoo xam ne bu ñuy ñaan ñetti ñaan la ñuy ñaan ndax nit ñetti def rek la am bés bi mu juddoo bés bi ñu ko suulee bés bi muy dekki di expliqué moo tax ñu bëri di yemale ci seen ñaan par ñett ñetti lixlaas ñetti xulwallaahu ñetti nangam nangam ñetti bés yooyu tax wasalaamu ala yowmu wulitu wa yowmu umutu wa yowmu ubasu ayan ñetti bés yooyu benn bés day li fi nga nekk sa néeg fi nga nekk sa biiru ndey kenn xatalu la xataloo kenn teggeesu la dara sant ñu la dara naaj tàngul dëgg jamu la loolu nekku fi say say nekku fi nga jékki-jékki ñu gumax la nga ñëw ci peuple bi yor loxo yi neen seen arma noonu yi du jeex naqar yi du jeex gàcce yi du jeex benn bés kenn leen dansiri boobu ak bés biñ lay yeewe nag yëg nga dëgg mooy foo xamoon amu la fa mënu la fa jox gannaaw fi ndax nee na si lépp amoon fi si lépp mën a si lépp benn bés gën a ko dansiri ak bés bi ñuy ëpp bufte bi ñëpp rek nga bëgg a expliquer foo jaaroon nag loo waxoon nag loo defoon ma ñetteel ko ma wax ne ndaw xuux ak xarantuwaa biir bu gën a feer ndaw xuux mu gën a feer bu ñu gën a neex a gis xaran xarantuwaa biir mu sang ba takkal ko téere yu xonk ndeysaan ak waa jooju génn ci biir ban bi waaw ma ne ku la tere ku la tere kooku jox la kii tooñ la waay waaye yàlla tooñ ñu waay wa maa rabbuka bi dallaamin lil abiid ki la taxoo nag di julli di woor ku ëppalee koppar soxla soo soxla du faji lu mu soxla du faji bu mu la juumloo déedéet bu mu la juumloo de million yi gaa yu dem ci lanko ni di ñu jul ak ba seen yëf yi ñuy dugg te dañ ne duñu oor bu mu la juumloo ñëpp da tax nga jéem a tekki sa ngemb daf lañ leen di xaaral yëf yi itam neef rek la yàlla wax na ci saar wu ñuy wax xadaf laxa wala saar wu ñuy wax moomin mooy moomin sax bi ne a yaxsibuuna anama numituhum min maalin wa banina nusaari'u lahum fi xayraati bal laa yash'uruun yàlla ne gaa loolu lan ko sama service bi ma di leen jàmm di leen jox alal lu ñu ñëwtu jot ko dañu foog ne teraanga la rek bal laa yash'uruun xamuñu sama pexe du teraanga maanaam maal boo amul lu benn dërëm benn dërëm mal pool ne du ma ko jëndee pool dërëm bi mal attaaya ne du ma ko jëndee attaaya jabaram ne ko kër gi njël amu fi mu làmpen bi da ko jox doomam jooy mooy tere ko dërëm bi mooy ñàkk lu muy def jaay dërëm ba jënd ko leen na yaaboy yemu ca ñaan xorom xorom yaaboy ba yemu ca nit ñi meloo ba nelaw neex mu jóg xaru ji ndax du ko daal dem biir géej ca xeeti xaru la di daw ba xameetul bëccëg xameetul jéeri xameetul géej mu door a feex moom maal jàpp yaa bay woowu mu jaayee woon dërëmam boobu mu aay woon mbokkam yi di ko dog dog yu jekk di ko laxas ci oos boole ko tudd bu mun a diisal oos bi di ko aawee jariñ bu jariñ defe ne teraanga lañ koy defar réeru na pexe moom fu jariñ defaloon maal ba mu di ko defar sa ci teraanga yéefar boo gis mu am jàmm nit dafa rëy bopp ku ko nar a lekk nax ko nit dafa rëy bopp caaxaan mën ko tax a dugg safara de dañ lay jox jàmm ju bari alal ju bari sañ-sañ bu bari loo bëgg a am ko loo yóotu jot ko su fay nekk ba day doxale ginnaaw ba nax la ci biir jàmm na su dul loolu kenn du la jàpp yàlla ne buñ jot ku nekk ne teraanga jéeg wér jéeg am am di dara dara rek ci lu ma leen jublu ci teraanga déedéet siir la rek boo xam ne jëmal ñoom jaanamaa tax kon nag maa ngi laay yëgal ne néew doole ki dëxal julli ak bari doole ki lànk ni du julli bu mu la tarank mukk te gars yi maa ngi leen di dénku dara gënul di ñàkk fayda ñee koo war a yërëm ñee koo war a yërëm baaxul bàyyi leen di ñee koo war a yërëm ku dul julli dañ ko war a yërëm waruñu koo ñee ak lu mu yor yërëmal ak lu mu mën a yor yërëmal addina bii day diine ku ko ci am ñàkku la dara dara dara dara dara ku ko amul amul la dara dara dara dara dara dara yàlla na ko yàlla defal te saxal leen yonent bii ngeen yonent yàlla dogal ñu bokk ci xeetam yow wax na ko sànq may nu nu gëm ko yemuñu ci ñu sopp ko yemuñu ci ñuy fere ngir maam yàlla na yàlla saxal ci loolu saxal leen ci saxal julli yëpp bi jaayi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu waxtaan ak yéen ci suñu téere góor gu baax bi Mawlana Hadj Malick radiallahu taala anhum dinaa di wax ne toujours bu ma demee ci gàmmu yi na ngeen fab ci téere yi wecceeku ko ci la zab yi sida bi ba kër nekk na sida Hadj Malick ak Abdal Aziz bii wax nañu ne Maodo ci boppam nee na téere bi ku ko fanaanoo boo xëyee na maag na bee fanaan doo kaafara lépp na bee ci nekk ca leer ba biñ ko suulee sida Hadj Malick bàyyi ko dara daa ko laa may ne بعد العبد ملجأنا فلا عليه إلهي مرتمى Yeah!
daw naa way yëpp classe ba mu daj ak beneen xasida bu Sidi Hadj Malick def bu ci ne liggéeyee na ca radul agsi ila ak sidri wax leen numéro bi ñuy jàng ñu jàng ci téere bi xool ko fanweer ak ñaar ku ci yor ci xilaas zaab yi nga xool fanweer ak ñaar daa xuloo may ni baadal atti man jaw naa salaaleyi ilaahi mun sularuuxu mi maado dafa bindane daa xulaa may ni baadal atti man jaw naa man ngay wax ne daa man jaw naa xulaa may ni baadal atti man ngay wax ne ملجأنا دع غلامين بعد العبد الله أكبر دلو يري فعل مع دعا ملجأنا الفاعل جي غلامين مفعول له day tasmiye li sim te yàlla ñuy nasabe de nasab la laaj masque yam ba mu duggee Madiinatul Munawwara xër ci moom tax ñu di ko doxale pour ganale ko di yootu nasu giléem gi te juróom-ñaari penc am Medina keroog ba ko na bi dugg penc mu ci nekk ka nekkoon délégué quartier ba alaaji Maali wax na turam moom la ñuy yebal mu téye ci giléem gën a ko wàccel fii bu ñuy wax Medina maanaam bu ñuy wax Dakar mboto tax cëppeelul fii la gor yi nekk ku la doon dàq baag see wàññi ku la joxoon ñu dokk ne bi langaan ba tolloog noppi ko yor nos ba am lu mu ko déey mu ne yalax nos ba te ba la yëpp tëggandoo gileen gi temp mu ngi say manto ba sontañ laa yoo kaala gu ñuul bu ma saa dem ci guerre ba am victoire couleur bu ñuul lay yor mel ni jant nag ci taar gërëm gi temp taax mi dina yëpp fees ak ñu yëg di séentu mu dugg bani saalim Utban ibnu Malik ko dogale téye ca nos ba na ko alxil ala talqa xayral amni wal adami aji Malik nee na njël màkk dafa langaan ba tolloo nopp ba am lu mu ko déey mun a yalax giléem nga dem ca rang ba giléem nga continué tabale yi tëgg naar yëpp forxe la Medina mel na dañ ko fayoon taal lamp yi leeru na bi gi jolli kaw suuf laahu nuuru samaawaati wal ard masalu nuurihi ka miskaatin fiihaa misbaahun al misbaahu fii zujaajatin zujaajatu ka'annahaa kawkabun durriyun yuuqadu min siyaasil barakati saytuuna laa sharqiyya walaa gharbiyya yakaadu saytuhaa yudii'u walaw lam tamsashu naarun nuurun alaa nuurin ya'dilaani luuhi man yashaa Alaaji Maalik lan ne na ba nabi ba nabi langaan di wax ñiy téye gileem gi la mu leen di wax xam na la mu leen wax gileem ko continuer du ko bandi ba yaagata alxam doxale ko téye ko ne ko alqil ada talqa xayral amni wal adami wàccal dëkk baa ngi fii la gor yi nekk fii la rifaas si nekk ñi la bëgg gëm la fii la bul na romb ngeen màkkal langaan ba tolloog nopp ba am lu mu ko déy mu ne yawax gileem ga dugg ca ron bopp gileem ga continué Seydi Hadji Malick nag ne déy googa mu déy ci banni umrin déy ko banni salim ñëw ci bayaadata déy ko jubal banni najaar déy ko ku ne mu déy la baat booba sax dakk te ca delloo ginnaaw tax ñu bàyyi gileem ga nag min ajli zalika qad arqa simana laha ata tanawaqa ata tanawaqa wala ata tatanawaqa ñaari taax la woon waaye borom ibnu malik dane uma bitaa ay nit tuddi qad yuxtasar fii àla taax ka tabayunum xabar féyel bu fekkee taatombe la jëkke nga bëgg ca dóor taatombey muqaatab wala taatombek yokku mën ngaa doyloo ca genn taatombe gi taba yenu la woon tatabayyana la woon alaaji malik teggi genn taatombe gi wattu ci genn gi ne min ajli zalika qad arqa simama laha ata tanawaqa au lieu kon ata tatanawaqa mu ne ata tanawaqa baada al masjid al haram jasaw laa waxee gileen gi yës Moustapha Sogu bañ na du wàcc gestu Ababacar Ababacar xool ko gileem gi bañ ñu du jóg ne bi bañ ñu du wàcc ndekete yoo booba commandant daar ma bu ñuy wax Jibril moo jiitu si kanamu gi gileem gi yore benn but boo boo xam ne wurusu ngalam la ak yàqoot ak marjaan moo koy jox suñ moo koy jox suñ gileem jiy dem ku ko arrêté rek ne bi ne leen service moo toujours mi bàyyi leen ko mu ràmb dafa am ku koy giide ñu di ko bàyyi di ko bàyyi ba mu agsi ci bànni na jaar fóon dóor tànki kanam yi rasulullah bañ na du wàcc mu dóor tànki ginnaaw yu ne bi bañ na du wàcc mu ne ñokket wëndaaluwaat wëndaaluwaat wëndaaluwaat dellu si fa mu jëkkoonu yées yesaat alaaji maa ni dafa wax ne bul bul way de wal barru ma allah anha suma qad wasabat saaraat saaraat walam tële wal jaajaawu lam yoqumi maanaam saarat wa rajaat wa barakat wal jaajaawu lam yoqumi loolu lépp alaaj maa def ko asaf ndax asul majaas asul asul majaas bil kalima dafa am bi jumla am bi jumla te jumla am jumla jumla la fa alaaj Malik asaf giléem nga dellu si ndeke yëf bu njëkk bi daf ko ne fay sa kër ne bi bañ na di waaj mu dellu si waat fóon ko yësu ñaare ba mu ne ko fii lañ lay rob fa la tëdd boo spencia fa lay jóg ramu ñu ñoom ñëpp boo gisee julli ruqoo ñu di ko def benn yoon nii siggi rek dem suuf te su joot ñaari yoon su joot ñaari yoon ruqaa benn yoon lëf la boo su jootee dañ naan la fóonal suuf ci nga jóge mooy su joot bu njëkk bi nga fóon ko siggi ñu ne fóonaar ko ci lañ lay delloo nga fóonaar ko fóonaar ni ñaareel julli gi door a baax alaaji Malik nee na donne bi tekkee ba gannaawu gileem nga féex la ne terrain bii ku ko moom ñu ne ko ñaari xale ko moom waaye masooru ñu te seen bàyyi dafa dee mu ne ko yor seen procuration ñu ne ko saadu mu ne na ñëw ñu ñëw mu ne xale yi jaay leen ma terrain bi ci maandu téem xale yi ne ko yàlla tere yow ñu dégg la yaay ngeen jimbindeef suñu bàyyi kenn àndatul ak sagoom ñu dalal la di la jaay mu ne duma samp mukk néegam yàlla fu ma jëlul foofu la ñuy départ gars yi daa xuloo may ni daa oolu na ñu ne si ko oolu mu ne maljaw naa sunu wéeru waay ba sub tiit ba alaxira na bi añëpp ñëpp bu fandee ñëpp dañu waaw añëpp ñëpp bu fandee ñëpp dañu daa oolu na Moustapha jëllee xulaamee ni dama ca fayit de ko oote ji maljaw naa sunu wéeru waay dellu sil ku ma xulaamee ni ñaari góor ca moom place ba kenn ku zëhal la tudde kenn ku zëhal mooy leen mise en prix wax leen ma lu ngeen koy jaayee ñu ne ko yàlla tere duñ ko jaay mukk mu ne duma ko saf mukk duma ci samp jàkk ko mukk te jëndu ma ko alaaji Malik nag ak Baye Sëñ Tuubaa ak ñi mag ñëpp ku ci tudd na bi mbaa nga junj ko moo xam ismu mulmar la wala ismu saayir la wala kinaaya la balaa ngaa defete dara julli ci moom door a jàll ba mu ne daa xulaa may ni baabal xatti mal jaw naa nabi la lana yalax wax ba ne sala alayhi yal ni dolli xiiwal ci waajooju ilahi sama borom mun sulu roox mi kay wàcc taw door a yëkkati waat nag wax ji wax li ba ba mu ootee lu xew ñu ne alaaji Maalik bi mu ootee ba xale bi ñëw mu posé ko question jaay lu xale ba tontu mu ne xam naa la mu tontu xam naa fa ñu mujj xam prix bi xam fa koppar yu jóge ñu ne kan laat lan laat ñaata la moo wax ومرفع الموصول المربدة يعني اسمها كده جمع لكم معدلة الذي مالك مكجلة من مال صديقه كل كوكو المعروف بالكرم الله أكبر يسأل أنا خير داخل أميني بعد الحق مجانا فلا عليه إلهي منسل الغوغوغي ثم الصلاة خمسة ثم تسور في عرب دقنت سوني سوني سيدو سيدو جاء سيدو جاء دكنا سيدو سيد سيدو سيدو فعل جاء سيدو فعل جاء ثم جلس ثم لتأخر لتأخر له summa bu arab di teg la benn summa rek jeex na dafa am nag différence nee na diggante waxanteeg tey lu ci àlla dinay dugali summa daaxula may ni daagal xatti ma jaaw na solaa ligi lay musoro ni su nastara waaw kañ su nastara nag boo bëggee prix yu rafet nga ne mu jënd ci ginnaaw waxante ci ginnaaw waxante mu gudd distance boobu tax mu roof suma jaay na ko duñ la ko jaay dañ la koy may du ma nangu may dama koy jënd duñ la ko jaay dañ la koy may diir boobu tax mu roof suma su ñu loon diir boobu day wax nag wastara wala fastara waaye summa nag summa ginnaaw ba ñu waxtaanee nag la fay moom